abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokk internet yi foofa foofale ca cité kër góor gi mën nañ ña commencé na di tàng te dara xewagul jamono bi ñu toll nii nag li nga xam ne rek loolu la ñii di opposition bi daal di teg te muy ànd jëli ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko dem jalo gi di benn solo slogan bu nga xam ne rek mën nañ ne kii di Guy Marius jot na ko génnee ne kii démb nekkat àndandoo ñun ñëpp dem jëli ko gannaaw nag résidence surveillant bi nga xam ne rek mu ngi fi woon ñetti fan boobu ba tey amul audace daal di génn ci këram moom mii di président Ousmane Sonko naka mën nañu boobu ba tey mu nekk ci ak cell gu nga xam ne rek nekkul ci euh, bak teeyaayu bakkanam tax nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay partisan ci wàllu politique xëy ni tey nekkat F24 war a amal jalook janook askan wi fa séene daal di jàmmaarloo ak ñoom nag fa séene wàcce nguur gu bon gi nga xam ne rek moom moo fi nekk ci seeni kàddu nekkat troisième mandat bi mën nañu bokk na ci li nga xam ne rek ñi ngi nag ñu daal di fas yéene takku taxaw niki tey jëli ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko dem dialogue gi jamono boobu nag ñii di nguur wala sax président Macky Sall di amal dialogue foofu la ca palais de la république nekkat am ay yenn ñu nga xam ne rek ci opposition bi la ñu bokk dal di dem ñoom it fas yéene teewee li nga xam ne moom mooy dialogue boobee ku ci mel ne ki nga xam ne moom mooy xalifa Sall donte le Barthélémy Dias mi nga xam ne nag moom baxoon na dina dem bokk ci dialogue ba dernière minute daal dinay mujj weddi ay kàddoom nekkat du dem ci dialogue boobee li ko waral waral di information yu nga xam ne rek fa yéene nañ leen kaa toppal incha allah jamono bi ñu toll nii loolee nekk li nga xam ne rek moom moo gën a fees di la ñaan nag ngay wéy di abonné te ngay bës cloche de notification bi sa j'aime ñu ngi koy xaar say commentaire